Euh, sëriñ maam Mor mu Cheikh Mahamadul Fadal mu ànd ak sëriñ Basir moom sëriñ Habibu ak sëriñ Muntaqa moom sëriñ Pakala ak mbokk yi ngeen gis yëpp ci wàllu daara yi euh, kon ñu deglu sëriñ maam mu jot li ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko ci sëriñ bi. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man baxda bokki jullit yi yëpp bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu maag sama bokk yu baax yi ma baaxoo àndal mbir mu mel nii muy waa rabitatul madaris al islamiyya bi nga xam al quraaniyya bi nga xam ne sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Fàllilu moo ko jiite moo sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Habibu ànd ko sëriñ Xaali Jaxate ñoom ngi ñu ko àndal ñëpp ànd ko ñi nga xam ni ñoom la ma sëriñ bi daan booleel nag jekk muy sëñ Cheikh sëñ Mountakha Mbacké moom sëñ Mamour Pakala sëñ Cheikh Abdou ak sëñ Cheikh Mountakha doomam ñu ànd ko itam ak ñi ko daan àndal muy waa Muqaddamatul Xidma bi nga xam ne sëriñ Afiya Bousso moo ko jiite sëriñ ab sëriñ Abdou Lahad Bousso ñoom ñi ngi fi di nuyu ñëpp ci turu Cheikh mun Mountakha mi fi nekkal sëriñ Touba. di leen jottali ay kàddu yu bakk yu gàtt yu bàyyi ko ci moom jëm ci waajal bisub Serigne Touba bii nga xam ne mu ngi jub si muy màggalu Touba te buñ ne màggalu Touba sëriñ bi sant yàlla la ci jublu sant yàlla ne sëriñ bi dafa dafa xam ni ci sëriñ Touba ku bokk ak lu bokk ci moom dara jiitu ci jàng alxuraan ak xasaayit moo tax ren jii mu waajale ko nii mu ko waajale bëgg nu defe ko nii ñu ko ñu ko war a defe ndax at yëpp na ko kilifa yu tedd yu baax ya ya ko fi jiitu daan defe ku ñëw yokk ku ñëw yokk noone la la doon doxale ba nëgëni si waaye nee na at mi dafa dafa rawati at mi ñu nekk nag ndax xew-xew xew ci àdduna si ñëpp teg seen bët teñ bëgg lépp barkeb Sëriñ Tubaa ak dooleem ak ñaanam ko nangu ak bisam bu màgg boobu ñu jëm lépp suñu borom jeexal ko takk ci àdduna si jeexal ko ci réew mi jeexal ko ci àdduna si moo tax mu digal mboolem daari alxuraan yi yi nekk Touba ak yi nekk ci dëkk sëriñ Touba yëpp ak yi nekk bitim réew yëpp ak fu ñu mën a nekk te yaakaar Serigne Touba te daari alxuraan ak mboolem jàkka yi Serigne Touba yi ak ja ak sëriñ Serigne yi ak mboolem daayira mu di ci nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew te ñëpp di njabootu Serigne Touba mu di leen ñaan ñu jàng alxuraan danañ wax ni koy jànge waaye mun nit mi ngi mi ngi ñaan bokk jullitam yi mu bokkal diine ji muy kilifa diine yi ak seeni waa kër ñëpp ñu bokk jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne moom la fas yéene liggéey Sëñ waajale ko mbise bisam bu tedd bii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar muy diggu gàmmu niñ koy jàng nag nee na dafa bëgg gannaaw buñ jiitalee yéene ju sell jéggalu yàlla jéema sumi ci mboolem ñaawteef yi biir yi ak yu biti yi jéem a takkaayoo mboolem jikko yu baax yi yéene topp ndigalu Serigne Touba ci sant la ko yàlla ci bisam boobu eh, wuutu ko ca nañ na ko ca kilifa baax yi daan wuutoo mu nekk bis boo xam ne bisu cant la boo xam ne bi Serigne Touba moo wax ne ci sant yàlla ci xéewal yi mu ko defal yi feeñ ak yi nëbbu te muy xéewal yoo xam ne yi dafa amub tàmbali waaye amut ab yemukaay te at mu jot tey gën di yokk nee nañu yéene ci lool lool lool loolu lañ ci yéene niñ koy jànge nag bokkut ak niñ ko daan jànge te dañoo bëgg mu yokk ndax di jamono ji demee waaye dañoo bëgg mu yokk te gën a sell gën a bari gën a gën a gën a gën a wér gën a pësteefu moo tax mu wax ni daara ju ne ci biir daar yi nekk Touba ak ni ma ko limee léegi daara ju ne bu fekkente ni daara ju mag la su ma nee bis bu set mu jàng ñetti kaamil suba gi bëccëg bi ngoon gi bu ko bu fekkee daara ju diggu dóomu la mu jàng ñaari kaamil suba gi ak ngoon gi su fekkente ne daara ju euh, yem la bu fekk mu jàng bu set benn kaamil ci suba gi loolu nag nee na dafa bëgg ñu topp ko tàmbale ko ci dibéer jëkk ci tam xarit wi ba kenn ñu naan suba la màggal suba la bisu màggal gi xayma bee nga xam ni waaraabite bi daanañ ko daanañ ko def at mu jot ci jamono Sëriñ Saaliw ba léegi daa fa wàcce alxuraan ci ñett ñaar ñaari fan yi wala bis bu mag bi nga xam ni alxuraan ji du dakk ci bis ba ba fajaru fajaru euh, euh, bis bis ba nee na bu soo ko defee su bis boobaa ñu mën koo euh, mu ñaan li mu bëgg li mu bëgg lépp suñu borom defal ko ci bis bi defal ko jullit yi defal ko taalibe yi kon loolu yi la sëriñ bi waxoon ni nañ ko santaane muy nag ni mu diglee alxuraan ji ci ñu ko jàng ci barab yi noonu la diglee itam xasaayit yi ndax alxuraan ak xasaayit dañuy ñaari warukaay yi sëriñ Tuubaa yoo xam ni ci lay defee jëñee ci lay ñoddee kon rawatina xasaayit yi nga xam ni moom la sëñ bi di tagga yonent bi ak xasaayit yi nga xam ni moom la julee ci yonent bi ndax yooyu mooy yi nga xam ne mooy xasida xidma yi euh, kon ñu jégg ko noonu baax a baax a baax te fas ko yéene jëfandikoo bu baax baax a baax a baax te xam ni sëriñ bi lépp loo xam ne mu ngi ñu koy digal suñ njëriñ rek la ay njëriñ rek lañ cee jëlee kon nu bokk góorgóorlu bu baax a baax a baax dégg ko noonu mu ko waxee te fas ko yéene noonu mu ko waxee dañ ne su ko defee bu bis boo bayee bu ñuy ñaan ñu fasal ko ci moom ci boppam ak yàgg ak wér ak mottali mboolem lu li nga xam ni kilifa yu baax yi ko fi jiitu woon naaral nañ ko sëñ Touba ak li mu ko naaral boppam suñ borom mottali lépp waaye ñaanal mboolem njabootu sëñ Touba gi góor ak jigéen ci ñoom itam ginnaaw bu mu leen sant buñ buñ buñ leen ko santalee ci seen taxawaay ci niñ koy jàppalee ci niñ koy dimbalee ci niñ ko taxawoo ci liggéey bi ñoom itam sama borom aar leen muy ñu mbokkal sëñ Touba muy wàllu mu yabok Sëriñ Tuubaa ak boppam gi ak mboolem ñi bokkal Maam Mor Anta ak Maam Maaram ak mboolem Buso bi yi ak mboolem cheikh euh, si nga xam ni ñoom ci ñoom la Sëriñ Tuubaa feeñale lii nga xam ni mooy moom da ko sëriñ suñu borom may ndax moo wax ni wali qaada ahbaban bihim uskul ushiru nuska ñooñu itam ne dañu bañ leen fàtte ci ñaan yi waaye ñu boole ci kilifa yi diine yi ak mboolem taalibe yi leen topp waaye ñu boole ci mboolem euh, réew mi mboolem adduna si mboolem jurit yi suñu borom defal nu jàmm defal nu kóolute defal nu euh, mbégte defal nu musu musal nu ci balaa yi ak musiba yi moo xam biir réew mi la moo xam bitim réew mi la moo xam adduna sépp la suñu suñu borom jàppale nu def aar lépp sàmm lépp ba lépp dàqu ñu fàtte lépp nawet bi ñu nekk itam suñu borom def ko nawet boo xam ne bii nii mu tàmbalee mu wéyee ni ba lépp àgg te ñu muurloo ko ci barkeb Serigne jubaa wax na ne barkeb Serigne Touba mën na lépp ndax la ko yàlla may xajul ci àdduna xajul ëpp ëpp na ëpp na àdduna kon dem na ba àllaaxira kon nag lépp lu taalibe soxla te aw ko ci ñaar yii nee na muy alxuraan ak xasaayit nee na umpalewut ni suñ suñu borom dana ko defal ndax suñu borom day daal loo ñaanu Serigne Touba ba kàddu yooyu la Serigne bi waxoon nañ ko nañ ko jottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp li ci des dañ ko bàyyi suñu xaari jaxate mi nga xam ne moo daan mottali li ci desoon mottali ñu ko noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëñ bi yàgg fi suñu kanam nu teewee ko nag déwén te kenn bañ a manqué wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Mamor mel na ni kàddu yi jot na sëkk mat na ni nga xam ne noonu la ko euh, sëriñ bi diglee woon kon defe naa ñun ñëpp dégg nañu ko muy yeesal pas-pas yi tuubal suñ borom jéggalu ko waaye dibeer ji ñu jëm di ñetti fan wala ñeent ci weeru tamxarit wi war a tollook ñaar fukki fan ñett ci weeru ut incha allahu taala moom la wax ne mooy bis bi nga xam kenn ku nekk fu mu nekk moo xam ci daaraam la moo xam ci jàkkaam la moo xam ca këram waaye képp kuy taalib sëñ Tuubaa digal na ko ba sàkk ko ci kuy ab jullit euh, ñu ko man ñu taxaw ca taxawee ci noonu yi mu wax mbooloo moo xam ne mën nañu ñetti kaamil jëm ca kaw fa lillahi alhamdu koo xam ne mën na ñaari kaamil mu def ko koo xam ne mën na benn mu def ko suñ jógee ca euh, dimanche joojee nag di ñetti fan ci wala ñeent ci di ñeent di ñett wala ñeent ci tam xarit wi ba bañuy àgg ci fukk juróom-ñaar fukk juróom ci safar bis bu nekk loolu yi bu sëriñ bëgg na bu mu dog bu ñu àggee ci fukk ak ñaar ci safar nag ca xayma ba ñuy jàngee alxuraan ca penku jumaa ja foofee dana yebal kilifa yii ñu ñëw xat mu ko mot li pas-pas bi bu ko defee kon ñu jàppee ko noonu yi loolu nag moo xam muy mbooloo mu dajee ci barab. ab daayira bu baaxoo toog ci barab wala ci kër sëñ Tuubaa yi wala daara yi ba ci mbokki jullit yi fu ñu nekk te xam ne mën nañ ko faa defee sëriñ bi sàkku na ko ci ñoom kon mi ngi ngi ciy soññee bu baax baax a baax noonu it la soññeewaalee ci tari bi nga xam ne gone yi dinañ ko def ñu bu bu gi jubee ñu leen di déglu ñuy tari alxuraan euh, ña nga xam ne mokkal nañ ca seenu mokkal rafet suñu àggee ca bis boobee di fukk ak juróom-ñaar ci safar. Euh, sëriñ bi signé seeni sahaada jox ko kilifa yi ñu indil leen ko moom tamit incha allahu taala euh, alxamis ji nga xam ne euh, moo war a doon juróom-ñaar wala juróom-ñett ci ci ci muharram danañ ko ca tàmbali ba tey muy tolloog le 27 ci weeru août woowu moom tamit lépp rek ngir gàttandu màggal gi ak waajal ko ci alxuraan ji ndax lépp lu ñuy defal sëriñ bi rek jiital ci alxuraan day tax mu gën a am solo kon sëriñ baa ngi ciy baax baax. bëgg ñu fullal ko te sellal pas-pas yi jiital ci ñaanal ko moom mii koy santaane suñu borom gën koo sàmm gën koo aar boole koog njaboot ko Sëñ Tuubaa gépp ak kilifa yi diine yëpp waaye it mbas mii fi nekk suñu borom jeexal ko ci ci àddina bi takk ci barkeb màggal gi ñu màggal ba noppi te dara du xew lu dul jàmm ak yokkute kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di leen gërëm. kon liggéey bi day tàmbali rek ci dibeer jooju ñetti fan euh, ci muharram wala ñeent. ba ca fukk ak juróom-ñaar ci safar sëriñ bi dana yebal kilifa ya moo xam muy moom sëriñ Mamor mii ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu njàngum alxuraan mi waaye sëriñ Bassirou sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne it comité d' organisation màggal gi ak kilifa yam fa baaxoo àndal yëpp danañ ñëw tëj teewal ko fa jàng xatmu ba tëj ko dénk taalibe lañ leen war a dénk kon sëriñ bi nee na diggante boobu yi nag. luñ ci farlu rek du doy luñ ci taxaw du doy kon mu ngi ciy soñ ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.